Mhm. bismillah aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi ñu seetaan ñoo ngi leen nuyu di leen ziyaar di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu di ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaqa al xalifa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ak mboolem njabootu Cheikhul Xadim di am mbégte ci jàkkaarloog suñu bopp yu baax yi di leen nuyu di leen ziare bu baax am lu ñu bëgg a waxtaanee tuuti ci xasida gii di xasida wa kaana xaqan alayna nasrul muminin di xasida boo xam ne xasida ngëneel la xasida tawféex la xasida xéewal la di xasida goo xam ne it ñu ko jàngatee ci biir. dana nu ca fekk ay bayit yoo xam ne daf ñuy gën a dolli sunu yaakaar daf ñuy gën a dëgërali sunu pas-pas ci Cheikhul Khadim muy xasida boo xam ne euh, sëriñ baa ngi ko tëggee wala ma ngi ko taalifee ca Mauritanie dëkk boo xam ne nañu ko fa yóbbu lañ ci jublu woon fitna wala coono waaye moom day sant boromam ci fu mu toll ndax dégg ca fa mu waxoon ne xamdi wa shukru kulli bihi saara lahu ridan wala suxtin inda sarsaar lahu thanaa'i wa ridwaani bila saxatin mufqaada li min bani laymaan ansaara inna alladina ila qad xasadu ziyaarati faaraxu daareyn aw zaara sant gi mu sant yàlla boroomam ci lim ko jagleel defal ko ko waaye it du ŋàññi mukk ginnaaw bi mu jiitalee ak cant wax ne kañ boroomam ak gërëm ko waxtu wu nekk fekk na ko ndax tànnal na ko ñu koy jàppale ca la nekkoon ci waa Banu am day man yàlla mayal ko ci mbaa yàlla ña ko fa fekk ñëpp ba tax mu ne mboolem ku nga fa fekk ngir ziyaare si ma tàggoo naag àdduna ak àllaaxira yi ak i bakkaar defe naa it doon ko fekkit xat jaa ani sutlu min rabbi bi takraar laa siyama an nabi xëyri jara waaye xasida la boo xam ne sëñ bi ko tënkee wa kaana xaqan alayna nasrul muminin mu mel ni bari na yeneen ni yu ci nekk yoo xam ne eh, sëñ bi dugal na ko ci waaye loolu taxul ñuy jóg dañ ci tànn rek yenn ci ay ngëneel mu waxtaane ko ci xam ngeen ne sabab bi it mën nga caa xamee ne xasida gi day dindi fitna xasida gi day indi kaaraange ndax ña ko doon sàkku ci sëriñ bi nga xam ne sax dañoo ñëw di ko di ko laaxan si ay jafe-jafe yoo ci jamono tey sàkku ci moom ak ñaan waxtu wa ñu koy waxee ba mu dugg ci biir ba muy génn génnaale xasida gi mu nekk mbind mu tooy xëpp xam ne waxtu wam fa toog bu doon kuy bind waru ko fa mën a waaye mel na ni moom lépp loo xam li wax ne euh, nafa maliki ma sa ani qabla ruya xam nga loo xam ne daf maa war a naqari bala muy ñëw ma ci ba ma ciy teg xam ne loolu lu doon lépp lu may naqari rek yàlla dàq na ko jëkk ma koy gis nga xam ne kon du ci teg mu tàmbalee ko ci lu yéeme nag muy jëmale cant ak ngërëm ci yàlla borom bi nga xam ne moo ko yelloo wajjahtu kulliya bi hamdin wa shakur xam ne kon lépp lu muy jëf moom bi ci cant la koy jiital cant gi nag mooy waral ak ndolleel waaye it ñaan boromam kun yaa waliyu yaa xadiru yaa nasiir lil mu'miniina innaka al bashir mu sante yàlla waaxu jëm ci borom bi waaye ci biir moo di ci ñetti adhabta yoo xam ne bu ca nekk dafa am lu cee wane ñu wane ne képp koo xam ne nekkul ku gëm yàlla képp ku nekkul ab yi képp ku nekkul aji kuy rafetal waxtu wa nga waaxoo jëm si ci man yàlla dàq na la ba ma sori adhabta fawran li siwaana kulla man laysa yakunu muminan yaa zazam azabta fawran li siwaana kulla man laysa yakunu musliman yaa zazam azabta fawran li siwaana kulla man laysa yakunu muhsinan yaa zazam kon dañ ci déggee ne sëñ Tuubaa ku nekkul mu'min nekkoo muslim nekkoo muhsin doo ànd ak moom te almurid wal mu'minul muslimul muhsin kon sëñ bi dafa dafa fekk lay daytalu mbir ma mu tànn ñooñu ba ba koo xam ne. sa gëm yàlla matul sa jullit matul sa rafetal matul boo jàppee ne ànd nga ak sëñ bi mën nga koo ànd waaye sëñ bi nee na mu waxtu ba nga waaye jëm si ci man dala lu tax nafaxtanaa bi afdalil iman fal xam ne kon yow yàlla jariñ nga waaye kon fal tartaxi jamia bi nga nu jariñee ba noppi nag na nga jariñ ñëpp door a ñëw na ci yonente xaddamte sayidal kon yàlla mooy ki jiital yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye ci biir xasida gi mu tudd ci boppam ci mbir yu yéeme yoo xam ne buñ ca tànnee benn diggante dana ko ca leeral waaye dana ca wanit yeneeni mbir ci ku ko won ginnaaw ci dummóoyu ko noonu ko lala cay fekk ak ki ko bëgg la ko fekk ak ñi ko bëgg dëgmal gi nga koy dëgmal ak ña ko noonu feneen fan yi jëm bokkul ak nag xéewal gam ñaanal ki koy jàng te danañ ci am luñ ci indi leeral ko ci mu wax ne yàlla borom bi moom daf ko barkeel ci xarafam lii baaraktali yaa rabbi fii fii waxee yi a jutta yàlla barkeel nga barkeelal nga ma ci sama araf yi kon yàlla daf ko barkeel muy lu barkeel waaye dafa am diggante bu yéeme muy diggante bi tàmbalee ci aataytani ljamia duuna salabi wali taquula su'la waxta talabi lii awsili alladi uridu wan faan biyal wara yaa mugniyan an midfaan naxawta qasda dorri lii bil muntaqa wa qutta lii maa waddahu sawi tuqa wajahta lii maa laa yazaalu ajaba fii abadin li saalihiina mujaba bokk yi aataytani jox nga ma loo ma jox aljamia lépp duuna sële bi te du fi jóg kon yàlla jox na ma lépp te lépp du fi jóg moo xam nag lépp la mooy al tawxid moo xam muy al islam moo xam al fiq moo xam al kitaab wa sunna moo xam furuwaaya na ko nit mën a dégg ndax ñi say jàpp ne loola la waaye jox ma ma lépp rek moo xam nag danga maa jox yee yëpp te duutu fi jóg nag ci man lu tax du fi jóg sëñ bi nettali na sëñ Modou Lamine Diop dafa nee na ku ñu Abdoulaye Sall wax na ko ne bés am na ñu ma si jóge ca gànnaar ñëw di seet si sëriñ bi ginnaaw tàkkusaan lañ ko gis sëñ bi julli tàkkusaan noppi ginnaaw tàkkusaan mu ne leen kuntu baxda salaatin max rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala lii inni talabtu laka min rabbi rabbil izzati an yaj'ala al-qur'ana wal hadith wadi'an lak bi ma sëlmalee léegi yonente bi nekkoon fii na ma sàkku naa ci yàlla mu jël alxuraan ak dénk la koy Ahmadu Bamba inni talabtu min rabbi rabbil izzati an yaj'ala alxuraan wa yarjam abdaka mën a doon rek lépp dajale waaye wali taqulu su la waxta talab lépp lu may bëgg waxta waa ko sàkkoo amul ëllëg Sëñ na maanaam du am rendez-vous pour déposer rek day amul lu muy demandé ñu ne ko ëllëg wala li taxul suuf la waxtu tere bi saa yu ma ne indi rek ñu ne am kon egg na ci foofu ci boromam ci lim fi leer mu wax ne kon wala li taxul suuf la waxta aw si li leen yi yàlla ñoddil ma ak sil ma ma bëgg waaye wan fax bi yàlla wara bu ma ci jotee ba bi yàlla kon moom waxtu wu nekk njariñul nit ñi la. yàlla jox ma li ma bëgg yàlla na ko am moo ne ko nag naa jëriñ ñi kon leew sil na si urudi wan fex wan fex bi yel wara yaa muux li an mit fex waaye maxaw taqas da dur lii lii bil mun taqa wa xutta lii maa wadda ko sori far nga lépp luy lor lu war a jëm si ci man far goo ba mu set kon aw ma benn lor te lu ko baax ku ragal yàlla doon bëgg di ko yittewoo yàlla wamat na loola jox ma ko ma waaye jox nga ma loo xam ne it lu dañ mukk di yéem gaa baax ci Cheikh bi wa jëtte lii maa laa fii abadin jox nga ma loo xam ne du dañ mukk di nekk kawtéef ñeel gaa baax waaye am na feneen fu mu wax ne akramtani ikraman ma shafa'a fa kullu ma aradtuhu minka fa'a ataytani ya rabbi min ladunka dikran hakiman faraditu abka yàlla suñu borom teral na ma teraangay teral na ma teral nga akramte ni teral nga ikraama teraangay loo bëgg defal fa kullu ma aradtuhu min kan faal lu ma bëgg ci yow rek loola day daal di fëx du toog sax ñu di ko jëli day lu ma bëgg rek def loola daw ñëw ci man yàlla barkeel na samay yëngu barkeel na samay yëpp jox ma nag gis nga euh, suñu borom ngëneel muy alxuraan ak tedd ngay yi lañu waxoon Mustafa sallallahu alayhi wa sallam inna sanulqi alayka xawlan taqila waaye ci biir xasida gi mu wax ca qulubu jumlati alladina aflahu li yatawajjahat wa rabbil muslih xol yi texe yépp dëgg mën nañu xol yi texe kon lim ne lim wax ne addaxalta nii fi xal bi kulli si falaa wa kunta nii ilal jinaani bi salaa yàlla tabbal na ma ci xol képp ku texe kon yàlla moo ma ci tabbal kon xol yi texe yooyu ñoo daw dëgmal si na nga xam ne xol bu mucc ci texee bi xol bu mucc ci alkande yàlla wommat na ko mu jëm si ci man Seexul Xadiim waaye sama bëgg dëgg dama koy jaawale na di jël ay bii di ko wax noonu lépp lu ma bëgg yàlla dana ma ko wommatale ci daraje yonent bi alayhi salaatu salaam ci lu dul ngànt lu dul foo ko jëme lu dul li nga laajoon koo ko jox yaquudu li kun fa yaqulu xaaji minka bilaa xaqidin wala taxaji bari na ku laaj dara ñu ne ko ñëwoon nga fi dem waxoon nga ko lañ la joxoon koo ko joxoon déedéet indi mu ne am rek mm-hmm. ay seq ak boromam ci lépp lu mën a doon waaye noonu ko xol yu tedd yi dëgmale nag ca la waxee ne nafayta kulla man qalaani fa hërëb li fa akrab yàlla dàq na képp mu daw lëgëtu fan la jëm ci xuru dëkk ci dang dang as coono nafayta kulla man qalaani fa hërëb li ma yasuuhu na yàlla dàq na képp ku ma bañ mu daw nag tabbi ci biir xuru coono ak fitna dawaa man di ca sax saa kurab di borom dang-dang ak borom yi coon kon gis nga ne alerte am na ci biir xaside gi ci wone noonu ko bëgg ko li muy jariñ ngëneel lam lay jox waaye noonu ko la muy xañ ka ko noonu ndax daw gi tàbbi ci xuru coona daw ci fitna te sax ca te dootoo ci jóg mukk waaye mu nekk xaside goo xam ne euh, boo demee ba ci jeexintal nga wax na ca ne yow suñu boroom mun naa la xaarijul xuruuf maa yafqudanna min ma'ruuf dafa oh, ab sew sew ngi fi lu lu yéeme sax sëñ bi day wax ne diggante boobu fi ne am na ay lim nee na gëléem ak cukkal la nag attan na sax bu ne ci boo agsee ci mun naa la xaarijul xuruuf maa yafqudanna min ma'ruuf di xasida koo xam ne Cheikh Mouhamadul Fadal nee na fekk na Sëñ Tuubaa yor ko nee mu ne ko Mouhamadul Fadal xasida gi lu mënta saafara amut saafara amut muy xasida koo xam ne xaqan alayna nasrul mu'minin Sëñ Tuubaa daana wax ne ku koy jàng ñeent fukki buntu kër yi la wër yaa yor seen kaaraan daana wax ne ku koy jàng doo ñàkk njël. koy jàng doo ñàkk njël kon xasida gi dafa boole kaaraange ba noppi boole xewal am na nu nu koy jànge jàngin wi mooy yéene jeeg fas-fas bi rek ndax yu ci bari mi ngi aju ci kaw yéene nit ki ak sellalam ci fas-fasam waaye boo ko dee jàng dafay tax nga gën a bëgg sëriñ bi boo ko dee jàng day tax nga mucc boo ko dee jàng day tax nga mos te dafa lay raxas ci mboolem luy ayib daf lay sellal xasida ko kaana xaqan alaynaa nasrul mu'miniin daf lay sellal daf lay muccal ci wépp ay daf lay jële ci lépp luy coona xasida gi day lay dindi ci lépp luy coona liñ naan euh, fegu moo gën faju xasida gi da koy def baan du def médecin après la mort du ba danger am mu door a ñëw déedéet boo ca dee nekk daf lay dëwyeel euh, problème moom xasida wakaana xaqanaa lay naan suñu wéen mu di xasida koo xam ne ñi koy jàng suba ak di ko jàng ngoon wala sax ñuy fexe ba ko jàng limu juróom-ñaar lu yéeme la ah ginnaaw ay taalibe la nag ñuy yéenante ci rek boo ko jàngee bak ci mun naa la xaalis maa ngi foofu dana min nga fas li nga bëgg ñaan seet ba xam gëleemu cukkal la attan na sëf bon xasida nag boo ci bëggee jariñ nga koy wutal béréb wutal ko waxtu boo noppee liggéey yàlla kenn ko woo ci mbedd kenn ko woo ci gaaram place euh, kenn ko woo ci cukur cukur bari na lu waaye di woo te ñëw na koy wooyee la téléphone sax boo koy wuyu bu nit di wax yow da naan ko nii ñu ne lay woote woo yàlla nag woo sëñ bi nag moo tax wutal ko waxtu tamit doon farata ju ko mat yitte ju ko jar nga woo ko ci waaye du def lu jóg rek nga ne nangam dafa am luy tax nit ki li muy wut man ko wax naa toujours ne ki active wut kenn mënu ko envoyé da ngay active bu ko defee ku la envoyé rek boo recherché gis lim la yónnee loolu nag mooy fexe fóotu xol bi def ci yitte te pas-pasoo bu ko defee loo ci bëgg rek. danga ko ca mën a am muy muy muy xasida googu xasida gu yéeme la gu bari ngëneel la bari tawféex la euh, ku koy jàng daal te di ko sellal danga mucc danga nga mus attan na lu lay am na ci biir nag ay yenn bayit yoo xam ne yoo xam ne baax na ci ak noon am na ci yenn bayit yoo xam ne baax na ci ñeneen xam naa du lu ñuy mën a wax publiquement waaye daal bari na loo xam ne même noonu bi paree sax jëm si ci yow maanaam kasida gi dafa dafa dafa fi ne am na noonu bopp boo leen face à nga xam ne zéro mètre moo dox seen diggante lu gaaw gaaw boo traversé bayit woowu rek daf koy éliminer ndax kasida gi day mel ni lu mel noonu da koo tax a ci défendre lu bari dàq la day dàq mais jël la day ñotti. dana la muccal dana la aar dana la musal dana la doon kon daal suñ bokki Touba ak sant ñi ñoo leen di nuyu di leen ndokkeel ci loolu te jaaree nuyoo bi ci jawriñ bi nga xam ne moo jiite liggéey bi seen góor Seck ñoo ngi koy sant di sa sant Serigne Cheikh Sam bi nga xam ne moo fi ñëwoon ngir jël si kàddu yi ñu ne xat-xat yi ñu fekk ak yitte yi te yu bari du neex di leeral waaye xasida la koo xam daal doy na ca bu jël bu jël lenn nekkutoon rek mun naa laa xaarisul xuruuf bi maa yafoo dana ne ma xuruuf nga xam ne kon euh, ngëneel la ak tedd nga ci faj jitte lu mu mënta saafara amul la sëñ sax euh, bay bii di mallaka nil maliku wal maliku wal maaliku la mat di baamtu la ci béréb ndax lu baax la ci. ñi ne ci bitti sax surtout nekk ak nasaraan yi te nekk ay saay-saay eh, moom am na ñaari bi def yoo xam ne baax na ci ci nit ki nga xam ne daf laa jublu ci bëgg a yàq moom moom mën na ko bàcc bàccal ci dandu dandu nii wala dandu ne ne rek man la ni malik wal malik wal malik lizulahu tamlik eh, mu mel ni it kon am <clears throat> yóbbal la yàlla yàlla defal na yàlla defal na dimbal asalaamaaleykum wa rahmatulaahi taala wa barakaatu. Euh, lu mel ni euh, waa Touba Argentine ne euh, say soppe dañ yoo xam ne nii jokkoon nañ maa soññ ci tey lii xam nañ say yitte xam say xat ndax napp nañ ko lu ma yoon yoo xam ne nii ngi ko bëgg a def mu mu mu mu kii waaye nga may ñu ci sa bopp it ñu nga jataay ak ñu xam yi nga toggoo yëpp ci ay coono ndax yaa ngi doog a agsi ñoom it ñu nekk ñoo xam ne ñu lay safoole rawatina suñ góor a sekk ma nga xam ne moo fa nekk mm-hmm. ak euh, dongay suñ Tuubaa yi nga xam ne suñ Tuubaa dong la ñuy dund mm-hmm. euh, ñuy taxawal benn bésu xasida boo xam ne ñu ngi koy amal le neuf te tamit euh, ñuy suñu abul baraka ñi moo fi nekkal suñ fàllu di fa a teew mm-hmm. ci diggante boobu yan kàddu nga ci baaxe mbokk yi wala lu mu ngëneel la ndax wax naa léegi bésu xasida bi bis yi ñu defal sëñ Tuubaa moom lu mu gën a bari gën rawatina gan gu sell googu du sëñ Abo sëñ moom ak jotuk sawara la maanaam jot nit ci sawara sëñ Abo maanaam ku teg ku teg addee ci loxoom rek seen jot la ci sawara loolu moom tawféex la ñu ko suñu borom fàggul te lu ay mbir la yu wóor a wóor moo tax murid yi gaa yi ne ci àll bi te ci liggéey bi te jafe-jafe yi bari nan waaj te ku ne fas te def li ma la wax moom waxuma ne dara ñaar fukk donc bu ko teg ci loxo am jot na te loolu luñ ko fagaloon la bu yàgg mu ndàmmee ñaar na boole Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Abdou Fall kon nag ku teg sa tànk ci jëf melo ndax diggante sëñ Fallou ak Cheikh Ibrahima mel diggante sëñ Fallou xaside yi teg sëñ Touba yor na xaside gi tàmbali ak am loo xam ne ba mu ca yeggee ñoom ñoom duñ ko wax kenn. ndax seen la kon nag loolu nañ ci góorgóorlu bu baax lu am solo la bis yi daal nañ ci dolli ci pas-pas dolli ko ci pësief te jàpp ko te sëñ Tuubaa tax sëñ Tuubaa kenn du ko jëfal maanaam kenn du wàcc mu des wax ne baa doo leen bañ ku leen nax ci man ndax ku leen nax yi doo leen naxu ku ne ci bitim réew am na ci ñoo xam seeni kër noppeegul am na ci ñu amagul soxna ñu mën a boole seen coono bi liggéey mu war a mën a xalaati këyit te lu ñu loola lépp mën a jël seen alal jël seen tàmm jël seen jom jël seen ngor jël lépp jëbal Sëriñ Tuubaa te boole tumurankeeg coono ak ñàkk a gisul njaboot te bëggloo amut te Sëriñ Tuubaa jaral leen ñooñu de xam nañ ne seen jëbalu Sëriñ Tuubaa la ñàkk kon nag na seen xel dara rek ndax ka ne ci boppam kay wut ngir boppam bokkul a kay wut te la muy wut mu jiital ci sëñ bi. ndax bari na koo xam ne tey ma ngay fexe ba ñu kër sëñ Touba te amagul kër te loolu sëñ Touba rek ko ko jaral waaye kër a ngi ñëw te ca lay gën a sedd ca lay gën a neex ca lay gën a baax bari na ko jàpp ne këyit yam yor wala ñàkk gaa am da koo jafe déedéet daa am lu muy liggéeyal sëñ bi mission la mu liggéeyal ko sëñ bi sëñ bi dana ñëw ci moom ci melaw mu mën a doon ndax sëñ bi moom dafa man lépp te it nag foo ko toll rek fa lay toll kon nag ñoo ngi ciy sant di leen ci soññi yàlla leen ci yàlla defal ndam defal leen ci tawféex ngeen daje seen ngërëmu Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullah